non état droit kay. mais bu réew bi demee ba tollu foofu. ñuy jub ay élection est-ce qu'on peut euh, donné ñu ngi doon sàkku ci ñu jox ñu ku neutre ngir mu organiser ces élections ñu jël koo xamante ne coloration ku ne xam na ko. Mhm. politique la ndaxte mu ngi dox ci liy tax. kilifaam mën a falu wala ki kilifaam jiital mu mën a falu est-ce que mënuñoo douter ci impartialité yi yi ñu jëm. xam nga euh, déjà euh, président Macky Sall ñi nga xamante ne ni ñooy ces vrais opposants ñi nga xamante ni ñoo mënoon a toog di dañuy kaas pour que processus électoral bi jaar ci yoon. Mhm. leer nañi. Mhm. ñooñu Macky Sall daf leen a créer ay dossiers yoo xamante ne ni <laughs> taluñu sax xool ndax élection yi dina jub wala du jub. <laughs> waaw dëgg la comprendre parce que tey. ku mel ni Ousmane Sonko ak ñu mu àndal. Mm-hmm. mais ñoom ñu ngi gën a tal. tal ñu seen candidat nekkee candidat que nu yi di leeree. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. ñeneen ñi la même chose ils te disent que bu ñu bu Ousmane Sonko bokkul Macky Sall bokkul xëy na ñun mun nañoo am dara. donc nu ñu organiser élection yi jarul kaas soo kaasee sax mun nañ la si jàppale yóbbu la prison comme Moussa Diop doo doo nekk candidat donc euh, yooyu moo waral tey jii nii nga mën a gis par exemple en deux mille dix-neuf Boun Abdallah Dionne taxaw ne cinq candidats mooy am cinq candidats am dara am dara xewul nga mën a gis ñu ne la le président Macky Sall na en 2019 ak plus de 58 pour cent des élections opposition bi sax déposé ñu recours pour contester loolu mhm. loolu moo mën a waral tey ñu ne am na des centaines de milliers de jeunes sénégalais yoo xamante ni am nañ 18 ans war a mais gisuñu seen carte bay dem voter ji mhm. donc tout ça di xew te comme nu nga ko waxee. Mm-hmm. Euh, avant deux mille avant deux mille mm-hmm. opposition bi dafa am taxawaay bu mu taxawoon ba Abdou Diouf dal di euh, comment dire xaaj ministère de l' intérieur créer ministère chargé des élections. Mm-hmm. ak commission boo xamante ni mooy saytu élection bi je pense que boobu onel la tuddoon. bu saytu élection yi. en 2012 également maître Abdoulaye Wade Macky Sall mi bokkoon na si ñi taxawoon di ne. il n'est pas question que Ousmane Ngom di organiser élection yi au Sénégal parce que xam nañu ne PDS la bokk c'est un militant plus que engagé c'est un responsable sax laay wax bu ñu ko joxee élection yi mu organiser lu ko neex lay def mais ba ñu demee ba déggoo ci loolu le président Macky Sall euh, Abdoulaye Wade plutôt indi kenn koo xamante ne nii neutre na pour mu organiser élection yi. Mhm. ba ñu fal le président mhm. Macky Sall. bu mu ñëwee lu mu njëkk def. Mhm. mooy ministère des élections daf ko supprimer. delloo ko ministère de l' intérieur. kan la tegoon ci kaw. kan Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye mi mu créé ndool APR. bu mu créé ndool APR. xam nga ne euh, déjà depuis le départ la Macky Sall faussé tout lépp la faussé depuis le départ. donc su ko defee nag ñu ne euh, euh, PDS. opposant la ñu jàpp seen responsable yëpp yóbbu ci kaso bi mm-hmm. taluñu élection 2019 yi nu mu demee mm-hmm. ñu ne Khalifa Sall candidat potentiel la moom tamit ñu jàpp yóbbu ci kaso bi ba ñi mu àndal ñu xool processus électoral bi mm-hmm. kenn moo fi nekkoon pour casse parrainage bi muy Idrissa Seck te Idrissa Seck jour bañ koy voté le 18 avril 2018 lu mu def mooy huit heures waxuma neuf heures la génn këram ñoo ne policiers yi jàpp leen ma ñu jàpp yóbbu commissariat central mu toog foofu di naan meew ba ngoon donc en réalité opposition bi amu ci kenn koo xamante ne nii taxaw na pour jàmmaarloo ak le pouvoir la ndax le processus électoral jaar yoon. Mhm. te loolu moo tax président Macky Sall dem jël ku mel ni Sidiki Kaba. mais teg ko à la tête du ministère de l'intérieur pour mu organiser élection yi. kon c'est purement politique. mais c'est purement politique mais bien sûr te bul fàtte bul fàtte ne en deux mille dix-neuf waa PUR dem nañ fi Tamba. di def seen campagne mais ñu attaqué leen foofu mu am ay reyante mhm. ah yoo xamante ni li ñuy wax mooy c'est Sidiki Kaba moom moo envoyé woon les jeunes yi doon sànni xeer waa PUR yi mhm. donc Sidiki Kaba boobu suñu ko indiwaatee pour mu organiser élection yi mooy que mhm. pouvoir bi narul lu jub pouvoir bi narul jub mais mais mais mais ci boobu wàll itam on a vu euh, ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy wax naan ñu naan Pastef ñi naan ex Pastef des fois sax ñu ñu imposer suñu ay plateau ñuy wax ex Pastef ex-Pastef boobu lan moo war a nekk avenir am maintenant. Eh, non déjà ku lay wax euh, waxal ex-Pastef mooy xamul affaire yi di doxee. ah waaw. leeralal ñu loolu. Euh, euh, non c'est c'est très facile kay waa Pastef dañu ne dissoudre nañ leen. Mhm. ñoom ñu dem déposer recours. Mhm. pour contester loolu. Mhm. tant que décision bi définitive wul. kenn mënul wax ex-Pastef. d'accord il faut. mbir yi jeex mbir yi jeex. ñu mën a wax ex-Pastef. ex passif mais tant que ñoom déposé nañu seen recours pour cause décision boobu kenn mënul wax ex passif c'est c'est c'est très léegi par rapport ak sa question bi nga ne avenir Pastef kon alors. non xam nga xam nga euh, euh, euh, man dama jàpp ne Pastef déjà quelque part li nekkoon seen objectif. Mhm. mooy que seen message. sénégalais yi comprendre ko. Mhm. jeunes yi comprendre ko. tey jii nii euh, da def bu njëkk Sénégal da nga daan téye sa euh, commande télé di défilé soo gisee débat nga ne ñii dañoo bëri wax yaa ngay xool làmb yaa ngay xool musique wala yaa ngay xool pecc ma mhm. aujourd'hui nit ñi lan la ñuy wax sunu pétrole bi mhm. suñu gaz bi sunu zircon bi mhm. donc les jeunes xam nañu les enjeux te pare nañu tamit pour seen dëkk changer. mais également la diaspora non négligeable nga xamante ne ni dañuy nekk France. Mm-hmm. Euh, dégg Europe. Mm-hmm. wala États-Unis gis dëkk yooyu nu mu développé. Mm-hmm. ñu gis ne par exemple France ñàkkul daanaka dara. te pourtant amul dara. ñu ne France ñàkkul dara te pourtant amul dara. amul dara euh, buñ la waxee total rek. ñu ne la en deux mille euh, euh, vingt deux. def nañu dix huit milliards d' de chiffre d' affaires xaw ma de de de recette. total. te pourtant France amul tokk pétrole bu fay feeñ. comprendre léegi yow boo nekkee dans ces pays là nga gis conditions yi nga xamante ne nii habitant wu dëkk boobu ñu ngi ci. nga gis yow sa bopp sax yenn facilité yi nga xamante ni yaa ngi koy am ci dëkk yooyu mais tu di comment possible ñun ñi nga xamante ne ni ñooy ravitailler France France lu mu am suñu dëkk la ko jëlee comment ça se fait su ñun suñu dëkk yi continuer nekk dans la misère chaque cinq minutes ñu envoyé ñu message sa waaye jàppale ma ci dara jàppale ma ci dara alors que richesse yi si dëkk boobu la ne mm-hmm. loolu day gën a bokk ci li nga xamante ni mooy révolter la diaspora tey soo seetloo daanaka ñoom ils sont parmi les plus engagés mm-hmm. parce que <laughs> mooy li la wax sànq dañu gis ne bu ñu amoon des dirigeants dignes de son mais pauvreté bi nga xamante ne nii ak misère bi nga xamante nii habit sénégalais yi ñu ngi ci mais duñ ci nekk. Mm-hmm. c'est ça le problème donc Pastef pour man am nañu tout l'avenir. Mm-hmm. puisque li ñuy woote mooy changement boo xamante ni dina tax sénégalais yi gis seen bopp. Mm-hmm. ci les ressources yi nga xamante nii moo fi nekk. mais pour gën ko résumer sax. li ñu bëgg mooy l'indépendance du Sénégal. ah amuñu indépendance. non mais. <laughs> ah moom Birame 4 avril lu ñu feete. 4 avril lu ñu feete ko. non avril moom dañoo sawar rek di défilé xam nga xam nga. dañoo sawar rek di défilé. ah man pour man dañuy feete suñu indépendance. non non non non non non xam nga xam nga xam nga xam nga pour être indépendant. waaw il faut au minimum ñett. ak ban ak ban. il faut au minimum ñett. économiquement nga autonome. hum waaw. politiquement nga autonome. politiquement. culturellement nga autonome. culturellement. économiquement politiquement culturellement. waaw politique nag su ma ko waxee. Hmm. Euh, euh, comment dire défense ci la bokk sécurité. Hmm, sécurité ci la bokk waaw. sa poche boobu xaw ma ndax xaalis a ngi seen déet. déedéet bii du ma nangu sax xaalis nekk ci. très bien mais bu ci xaalis nekkoon xamal ne CFA la tudd. <laughs> waaw CFA bi CFA <laughs> man ak yow suñuy communiquer nii. Euh. déjà moo communiqué bi rek francais la. Euh. waaw comprendre mm-hmm. tey ñu ne la France wax naa la monnaie bi. Mm-hmm. <laughs> wax naa la langue bi culture bi. Mm-hmm. Hmm? xaaral ma génne la benn comme ça nga mën a expliquer. ndax ngay wax nii nga mën koo gën a waa benn nga nii bu ndaw. <laughs> waaw la ñuy woowee sax borom dëkk bi. ma ngoog. waaw léegi xaalis baa ngi nii lii. waaw fan lañ koy defaree. Ah, banque centrale. déedéet lañ bind dëkk bu tudd chamalière nekk fële sa France. très bien c'est important nga leeral ko gars yi. dëkk bu tuddu Chamalières nekk fële ca France. ca ñuy defaree xaalis bi circulé fii yëpp. ci Sénégal. ci Sénégal. d'accord ak ci non ci zone. waaw mooy CFA bi daal ñiy dund ak CFA. Mango d'accord. Euh, euh, euh, boo nekk bu ñëwee Afrique de l'Ouest fii huit pays la yoo xamante ni ñoom ñoo yor CFA boobu les pays de l'UEMOA. waaw léegi. sécurité ak politique. Mm -hmm. euh, euh, euh, les bases militaires françaises là. Ah. Euh, xam nga ñu ngi naan comment dire euh, Abdoulaye Wade fexe woon na ba base militaire yi française yi wàññeeku. au Sénégal di dem ba fi waaju jóge noonu lañ ko doon waxee. mango mais tey su nekkoon ne les intérêts français. Mhm. Hmm, mhm. dañ leen menacé réellement réellement réellement. Mhm. di nga gis base militaire française français yi ah ñu fay monter ay hélicoptère <laughs> di di fa monter ay ay ay ay blindé pour tout simplement wàcc sur le terrain en 2012. Mhm. bi ñuy euh, mani 2011. Euh, mhm. bi ñuy wax waxu manifestation fii euh, comment à la place de Soweto. waaw ba dëkk bi métti woon ba métti. lan la ñu wax. que Karim Wade dafa woowaa Fran armée française pour ñu intervenir Sénégal xam nga débat boobu déggoon nga ko fi. soulevé nañ ko fi ah. très bien mais boo ko xoolee sax xëy na Sénégal peut-être présence militaire française bi amu fi euh, comment dire. fësul yenn fës yi. Mhm. ba ñëpp mën ci bàyyi xel. Mhm. mais boo demee par exemple ay dëkk yu mel nii Mali. Mhm. nga xam ne am na euh, bu yàggul dara. Hmm? matul sax trois ans. pour avion malien décoller ci benn aéroport bu mënti doon ci dëkk ba il faut nga am autorisation militaire français yi ci sa biir dëkk pour sa avion euh, euh, naaw il faut ñoom ñu jox la autorisation ñoom ñu jox la autorisation ñoom ñu jox la autorisation yéen yéen ci seen bopp yéen l'armée malienne armée malienne ngeen bëgg a intervenir fu mel ni kii daal armée française def barrage ne leen doo leen mën a yegg daal mhm. comme si Sénégal tey mhm. yow nga bëgg a dem Saint-Louis am foo xamante dañ fa français yi dañ fa baare dañ fa mhm. taxaw ñu ne la doo fa yegg donc ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni tey daf lay woon carrément mais euh, dernièrement xam nga <laughs> dernièrement maa ngi déglu hmm, le président Abdourahmane Tiani uh-huh. bu Niger muy def interview. muy expliquer accords yi nga xamante ne nii Niger ak Bamako euh, no ak euh, waa non ak Mali. dénoncé nañu ko. double imposition ñu ne. dañu xaatim ay accords yoo xamante ne nii. Hmm? man ak yow par exemple bu ñuy jëflante. yow doo fay impôt sama kër man tamit du ma fay impôt sa kër. comprendre léegi ñu ne ab entreprise française su ñëwee. Mali du fay Mali entreprise du fay Mali impôt. Mhm. mais tamit entreprise malien su ñëwee France du fay impo président Niger bi mu ne. mu ne France amul sax marchand ambulant nigérien. moo ko wax moom président noonu la ko waxee mu ne France amul sax marchand ambulant nigérien donc double imposition boobu. kan moo ciy bénéficié wu. mais dëkk bi nga xamante ni am na entreprise ci beneen dëkk ba. Ah tout simplement. Ah muy les français ñu ne ñoom seen bopp ñoom ñooy fayal taxe armée française bi nga xamante ni mu ngi woon foofu ci xaalisu Niger lañ koy fayalee ay taxe ak ay impôt ci produit yi dugg si ak lu mu mënti doon donc quelque part da ngay comprendre que pour nga xam ne ñun amuñu indépendance mooy xoolal dëkk yi nga xamante ni ñu ngi waajam indépendance accords yi nga xamante ni ñu ngi koy dénoncé te mu tënk leen tey de sorte que amul ci benn dëkk boo xamante ni mën nga décider te kenn du la wax ne nii la wala nale la. Mm-hmm. te l'autre preuve mooy que tey Sénégal ñëpp xam nañu ne pour mu développer il faut forcément mu jaar ci mbay mi. Mm-hmm. waaw. il faut forcément mu jaar ci mbay mi. Mm-hmm. yow Macky Sall nga yaakaar ne mu dem ba Russie di wuti foofu pepp yaakaar nga ak engrais loolu yaakaar nga ne gàcce loolu toute l'Afrique. <laughs> ah moo tax ma ne ba mu fa demee di waxu ay waxu dugub ba ki blé Poutine war na koo xool ba ci yàgg mu ne mais kii xanaa dëkk bu mu jógee ay handicapé ñoo fa dëkk parce que tey man def naa Maroc nga xam ne kilo soble day cher ba cher doo ko jëndee trois cent francs hmm. lu bu chéré ba cher doo du weesu trois cent trois pomme de terre la même chose mënul weesu trois cent francs hmm. te pourtant Maroc boobu euh, euh, yaa ngi dégg les atlas maanaam nekkuñu ci terrain plat ci ay montagne daanaka la ñu nekk comprendre te amul benn fleuve boo xamante ni foofu mën nga cee teg sa baaraam ne mën na leen a permettre soble boobu ak pomme de terre boobu bari fa te ñaari produit yooyu laa tudd mais daanaka ci yeneen produit c'est la même chose mhm. suukal bi nga xamante ni Mimran mu ngi ñuy bëgg a rey di suukuru suñu su suñu doo soo demee foofu ça ne coûte donc nga ne léegi ñëw nga Sénégal déjà si terrain plat la ñu nekk fi nga xamante ni moo fi xaw montagne muy les mamelles de Thiès et autres là boo demee ay Kédougou mais c' est des zones yoo xamante ni c' est rempli de ressources minières. Mm-hmm. comprendre nga. léegi le reste c' est terrain plat ñu ne yow am nga trois fleuves mais yàlla yemul ci loolu yàlla mu ne jox naa leen phosphate. ah. parce que pour ngeen mën a jëfandikoo ndox moomu pour ngeen mën a jëfandikoo terrain plat yooyu xëy na di ngeen soxla engrais boo xamante ni ah, mooy gën a defal suuf si. tout à wax ma ci yooyu lan la ñu jëfandikoo. xam nga Sénégal <laughs> maa ngi dégg sax démb si Bara di ci ñëw. <laughs> da ngay jàpp ne <laughs> très bien. fi mu ne nii publicité bi am si terre bi nii. Ah, ah. dangay jàpp ne Sénégal benn train moo fiy daw mooy la terre. Mhm. te alors que. alors que chaque jour train mu ngi jóge ay jogo ay Taïba. di jël suñuy produit di dem directement port de Dakar. di ko def ci guddi. Euh, guddi. kenn du yëg chaque jour ñu ngi dem port de Dakar di fa déverser les ressources du Sénégal ñuy jël di yóbbu beneen dëkk. les fleuves yi nga xamante ni ñoo fi nekk déjà fleuve Sénégal ñu ngi créé woon dans le cadre de l'OMVS. Mhm. benn cadre boo xamante ni suñ ko joxoon doole bu mu war a am mais énergie bu ñu fay jëlee en terme de hydroélectrique. mënoon na permettre mais au moins cinq régions wala six régions ñu électrifier leen rien que ak le fleuve Sénégal. ñu ne créer nañ tamit OMVG fleuve Gambie. mais xoolal yooyu yëpp wax ma ban njëriñ la ñu amal. tey jii nii Sénégal mais Sénégal ma ne la boo tëjee port bi six mois sénégalais yi dootuñu lekk. bu yàggul dara rek ak coowal Mali bi bu mu fi rek.